géejawaay te mos a ñëw ci yow jàppale la kon bu toogee fi si nekk ci mag ci làmb dañ koy jox lim moom Baye Balla bu bi ñu dugg see ci question yi rek ah dama lay bàyyi nga ibbi ñu commencé ci diggante ñun ak ñun ak suñu waa ji di nga xam ne ni tey jii dañoo dem seen doomu dàngu mu wax lu ñaari yoon ndax li doomu dàngul wax bëri na ndax tey rek sama dina tontu ah dañuy bàyyi rek ak Baye Balla mu ibbi ñu jublu ci waxtaan wi. Ah, ah euh, Fadam Kour ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax résumé nga lépp wax nga lépp ah laataa ñuy dugg ci waxtaan bi damay bàyyi jóg moom tamit mu ngi koy seetaan ñun supporter waaw ginnaaw bi sant yàlla di si jëm sant suñu ñaar waa ji di sant waa Sénégal bi nekk fi lañ màggee fi lañ yaroo fi lañ def suñu enfant yëpp bu xëy tool yi tey ñu leen di sant di leen gërëm bu baax di nuyuwaat bi ñëpp di nuyuwaat sama boppam sama góor bàyyi ko man ma sama dëkk waaw dëkk sama yaay ma dëkk sama baay ma dëkk waaw di jaale Moussa Dioum sama mag la sama xarit la yàlla seq ay terrain la man liggéey ak seen moom mu ngi yebeen si yàlla kontaan mu ngi tax benn moom nice na quoi mu ñibbi ñu ñëw sànni daaw lu bëre mooy micro bi jërëjëf Jordan waaw dégg nañ la bu baax léegi ginnaaw bi nga nuyoo léegi nag yaa ngi jëm ci combat mag yaa ngi jëm ci bisu le 15 mai ñu ànd ceeg moo gën events mais xale bi ngay tey xale bi changé ndax xale boobu ñu ngi fàttali ci tournoi TFP ci stade bu Dombar waaw li ñuy wax rek ñun yàgg nañ ci làmb làmb duñ ci gan yaakaar naa ne nañ at yi bare bare bare bare bare doomu daam champion la pour ñu ñaan champion la loolu moom du problème quoi man moom lu sama kanam mooy xam nga pour daan mu jaar dama koy damay xool ci jox naa ko jot respecté naa ko mbër la comme mbëri mais wax dëgg fa yàlla bu fekkee dëgg moo neex yàlla bàyyi ma ko sax xel dëgg fa yàlla sama xel mu si kanam war a màgg sama tur bu baax a baax. mooy li ma la wax bëri naa ñu ko dàq xeex bëri naa ñu ko dàq bëri yaakaar naa bu xam joroon jogo aw ma sax xalaat di di xalaat si bëre wala xeexam parce que lépp lu muy war a fekk na ko fi am na ñu jaar ñoom ñoo gënoon tàng fuuf wàllu xeex te tey ñooy coono buy am yaakaar naa maa leen teg coono ñu ma coono champion la nag mbër la xam naa ko cër respecté naa ko vraiment. non tey jii su ma sañoon sax duñ dugg ci wàllu respecté ndax tey jii doomu dàngu dañ ko sekk ji tëngeej mu téye micro bi ne ma Fadam ne Baye Balla Mboup Jordan ñëmut a xeex ak man su ma ko gëddee du taxaw. seetaan naa leen bu baax a waaye man wax dëgg fa yàlla gars yi xaaruñ si man wax ju bëri damaa war a prouver ak a yóbbu sama carrière ak fu ma war a yóbbu sumay nit ñu xam ne kii kat bokk si làmb kon man yaakaar naa taasu bi ak kebatu bi wax dëgg fa yàlla amateur yi sa xaar ñu ko ci man man jëf la ñuy xaar ci man si kàttanu yàlla mais ñu bëri dañu dellu avance waaw doomu Dame yàlla champion man ma la mbër la man amul benn mbër bu may xeeb man sama combat ñu bëri delloo nañu ko kon moom bu ñëwee jël ko dama ci sant baax a baax xam na nag loolu laa yàgg a wër Pamba comme moom moo ko jël jàmm bis ba incha allah ñu xool. dëgg li ma la sant man doomu daam ak lu may soosi lu mu andi fekk ko fi nañu wax moom est-ce que moom dina taxaw loolu mooy wax ji. est-ce que dina dëggal boppam. voilà man loolu lay xalaat ñu bañ a def ay jëm góor jëm mu taxaw ñu joxoon tax mu jeex. bu taxawee di ko ñëw mu ngi neex. dëgg li ma la xam man doomu daam pour doomu daam ab sa kaw mais jot Jordan bu ma ci lamb nag yàlla bu ma ci lamb. doomu dàngul dañ ko boole sa benn poulain boo xam ne nii soq la tudd soq bokk ci espoir yi mën ci lamb doomu dàngul ñëw wane ci bi biñ ko posé question boobu dañ ne bu sa diggante tey jii Jordan dafa ne Jordan li muy bëri daf ma li muy xeex daf ma loolu moo tax doomu daangu osé ci sa kaw tey dafa jot nga wax amateur yow yaay kan ndax fi nga toll ci làmb da ngaa ay champion yoo xam ne nii tey jii ñooñu ku leen ku leen tikk micro lu leen neex la ñuy wax ci làmb te bu ñu ñëw koy jëf te ñu danga leen daan kon tey jii boo dajee champion mel ne doomu daangu dafa jot nga wax yaay kan ci làmb dafa jot ñu xam kan mooy jot la ndax poids lourd nekk ci làmb kenn ëpp la ñuy fay ko ci làmb kon jot na jotoon ñu gis ko ci wàllu làmb ci beneen bokk ak bii ndax doomu Dangote dafa taxaw ne la mu dàq bëri moo la ëpp doole moo la dàq xeex loolu dafa jot nga wax ñu war ñu leer nañu mooy li wax rek da nga yaa xam la xul làmb lay wax rek foofu mbër mbër ku ne yàgg nga dégg maa mën kii doo nangam doo nangam dugg ci doo def dara kon loolu yaakaar naa yàgg naa ci làmb lu ko doomu Dangote sax franchement transfert ma sax bu may gën a yokk jom yokk ma yokk ma yeneen sañ-sañ parce que wax ju bëri moom amul sens pour moom man li ma la wax sànq rek gars yi xaaruñ ci mu joroon baaxu xaaruñ ci doo fekk trois points la ñuy xaar muy victoire loolu la ñuy xaar leneen maa ngi si yoon boobu mais mais dama gis ne dama gis ne Jordan dama gis ne Jordan communication bi dafa commencé nekk communication professionnelle gis ne ñebe nga posé ci sa diggante doomu dàngul combat boobu tey jii nan nga ko nar a jiwee ci bés ba ak nan nga nar a réagir ci bés bés ba boo ñëwee doomu jàngul tey jii indi xeex bu sax tey jii boo gisee buntu ci bëri da ngay exploité bëri bi wala da koy fekk ci xeex bi 100 pour mun naa la waxtaan si yàlla doomu dang mun naa ko jàngal ko yàlla yàlla nag mooy ay mbiram. Eh, bëri ko bu feesee dina bëri yi mais buñ tokkoon self bi léegi maj maanaam daal bëre bokkuñ sax man ak moom bokkuñ sax si bëre même xeex bu ñuy woote maa ko tax dër mu daanu nag yomb ci làmb yàlla may nga jël mais loolu mën a xamal mooy bu ñu taxawee man ak moom bu xeexee ci moom lay metti bu ñu bëree si moom lay metti alaaji Baye Balla Mboup dugal ci loolu ñu waat ci Jordan ba léegi Jordan gis nañ ne bi combat bi di taxaw gis nañ ci combat ak doomu moo gis na tey jii nga xaw a wàññi poids poids bu bari da nga bëgg a mobile ci combat bi wala tey jii combat bi daa am lu ciy ci wàllu xeex ak wàllu bëri ba moo tax nga wàññi poids nii waaw liggéey bay métti la moo booy liggéey day feeñ liggéey bi moo métti ñu ngi contact ñu ngi boxe ñu ngi physique loolu fu ngeen xam ne wàññeeku mais nag wàññeeku yëpp doole la parce que liggéey bu baax moom da nga mel ni ko mbir rek yaa leen doole léegi laa gën a sànni sama bopp léegi moom xam nga salan salan yëpp ñëwaat na bagage yi ma jibee yaa ma gën a xam man aw ma poids wax dëgg bu yàlla man su ma amoon 150 kilos ma am sama bopp xale la damay liggéey sama yàq baax na du ma xiiboon dama namb si néew yi fii ak sooy ba man di lekk si yàpp bi yàpp mu ma problème mu doole ma problème mu physique aw ma problème mu yéex wala gaawaay c'est que nag ku nekk nag li ngay gis da ngay wax man moom maa sant yàlla sama état forme bu baax a baax incha allah mu ko sumee bis ba ngeen xam ne joom yi ah am na lu mu allah. le problème a nekk nekk bés boo moom lañ ci woote mu nekk bés boo xamante ni bésu amateur yi la nañu teg lu war a mat six grands combats ci bis boobu ñu tàmb ci cor ak ki nga xamante ni mooy doomu daal dañu bëgg nga wax amaatee lan nga fas yéene indi bis boobu ak naka nga fas yéene ñëwee ak ñan nga war a àndal. métti parce que yi dafa am lu leen di indi sax. métti nga indi. waaw mooy li may wax rek amateur yi lu ñu xaatu jooju ñëpp xam na ñoo ñëw benn daal man nag maa ngi waajal ma sumay mbokk waa Seras sama doon maa ngi waajal bu baax a baax a baax waa Pikine waa Sébikotane diggante xam nga mooy loolu nga maa ngi waajal bu baax a baax aw ma benn pression aw ma benn lu may sarax parax combat bi dama ko soxla incha allah mu duggee si làmb ji bu ma bàkkoo dañ xam ne joo bëgg na moo bëree ne ñëpp nañ jàpp incha allah. daa am lu lay wax te nga dégg ko fii làmb toll ni tey jii fii rëdd Sa Thiès nekk da am place te yaakaar naa ne daan doomu dàngul mooy tax nga àgg fa foofu noonu dafa commencé manqué adversaire te Jordan yor na taay bu mën a dugg foofu te nag fi nga jëm combat bi nga jëm ku la ko yombalal combat bu teel ngay bëri combat njër ndém bi bëri dama ne ki nga Jordan dama bëgg nga wax doomu dàngul danee amul benn pas bu muy arrêté diggante ak yow te fa nga jëm say morom ñëpp rëg-rëg ñii ci làmb li feeku yéen kase yi ngeen saa Cees da nga faa jot nga àgg fa te daan doomu dàngul mooy tax nga àgg fa combat boobu lan lañ a mën a xaar ci Jordan ci yeneen facette yu bokkut ak yi mu daan ndax dafa jot stade say supporters ñoo gën a jege stade bi jot na jot doon wane ci mbooloo bi nga xam ne nii tey moo gën bu tëggee journée bu toll nii jël ticket supporter def ko ñetti téeméer kon kooku bëgg na mbër yëpp wane seen bopp ci wàllu mobilisation Jordan sa digganteeg doomu dàngul dafa nekk combat boo ne combat roi des arènes combat boo war a wane sa xeex war a wane sa bopp ci bëre yow loolu la ñuy xaar sa diggante ak doomu dàngul ndax doomu dàngul nee bis boo xeexee dootoo ko waxaat bis bu jàppee sa ngem lamb ja jeex kon nag tey jii loolu ñu ko ko yotoon di ñëw fii tey tamit nga nga a a wax de daa a wax wax ma wax lu may wax rek moo ma man li may wax bëriwul nga du ma gan ci lamb lu léegi rek lamb bëri naa ci ba sonn mu ci gan kon yaakaar naa communication ay doomu daango wax lii wax laa man pour man loolu concerné wu parce que sama bët comme li nga wax léegi maa ngi ko teg si kanam te combat bi moom ko mën a may te xam naa combat fan la may yóbbu li tax ma jógoon jëloon woon ay caaxaan te ñëwaatuma si làmb pour ay daanu maa ñëw si làmb pour wane sama bopp dem jël li ma moom comme sama morom loolu moom daal ci làmb naa parce que bañ toog ay bor laa mel gars yi toog da nga war a fay. loolu moo fi a bi ko fonk naa ko. dama gis dama gis say morom ñu bëri ñu ngi ay visa dix ans États-Unis te loolu yàlla may na la ko nga bàyyi fi visa yi ñëw toog ci lan la ban ambition nga am ci lamb tey jii ba bëgg perte ak say morom ak lenn lan ngeen ambition nga tey lamb dafa doy waar da ngay mën bëre mën xeex am lépp am lu la manqué mu xaw la tardé mais sant yàlla la joro la moo ko manqué man li ma manqué mooy lu suñu borom dogal mooy suñu borom buggee mu neex dina nax buggee mu naqal day naqal kon loolu yaakaar naa dool ñu waxaat li ma bëgg nag mooy ak li ma gëm mooy dama am sama cër dama koy jël incha allah si combat bi dinaa ko jël ba ñëpp di leen jàpp seen géem yi xam ne gas waaye ji lu ma ko def na si kàttanu yàlla soit fii laa manqué fii may am 16 ans xaw ma 14 ans dama bàyyi jàng la ñëw fii fii laa def fi 10 ans et quelques fii laa màggee lu moom fii laa koy andi fii laa tiitaroo fii mu moom lu gën lu moom fii laa koy andi fii laa bokk dañu gis na doomu daangu doomu daangu. ci biir làmb am na ci quatre kaw. waaw booba léegi damay dégg moom muy wax ci xeex bi di wax ne du arrière benn pas te doomu daangu ku ko xam digganteem ak ñax jariñ naan di faal soq Guinée ñëpp da leen a daanu. lan lay waaj ci diggante ak doomu daam parce que daamu moom bu dawul mu boole ko ci li mu kaw léegi mu pare aram ñëw mooy li ñuy wax rek man dégg nga li mu laaj waaw mooy li muy wax rek nee na ñetti kaw doomu daam ëpp na ko sax kaw wala ëpp na ko cinq cinq kaw cinq adversaires yoo xam daa kaaw ñu bari te loolu intéressant moom mooy li ma la wax lamb du ma dugg ay kaaw a jàmbur moom yooyu ñu ko liggéeyante man li ma gëm mooy li ma liggéey maa ngi liggéey te xam naa xeexee rek moom doon ko defati su kattan yàlla xeex ak la xalaat est-ce que ñu ko dàqee xeex foofu xeexee kenn moo wari ñoom ñoo wari man amul problème boobu ku xam jiw xam na amul problème xeex wala bëri bu ko neexee nag wax lu ma neex moom la concerné man gëwuma ay góos ak ay du ma ko teer bu ma lay laaj te dama bëgg lu artiste di denc lay doon mhm. te dama bëgg nga tontu ci ni ngeen normal lan mooy sa rêve ci lamb lan ban boo xam ne saa yu tëddee bu tuddee mooy ferre boo nekk ñuy wax rek borom bitig boo gis boo xoolee xool ba fekk kon Jordan li mu bëgg si xam ne ñëpp comme ni ñëpp bëgg roi des arènes ko fii Seras ñëpp bëggee nekk roi des arènes moo ko mën a may Jordan nekk roi de arènes ah, yan tànk la Jordan di mën a jàpp mën koo nekk ndax dañoo gis ne ñu nekk roi des arènes nekk ci ay loxo Jordan yan loxo ko téye ba mu am rêve nekk roi des arènes am na ko xam Jordan dëgg am leen bokk dama doon dem ak sama tolotolo ak ñëpp xale mais tey am naa kilifa yu nekk sama ginnaaw yoo xamante ne tey macha allah am ma benn xalaat maa ngi entraîné matin soir depuis couvre-feu ba am ma arrêt dañu ma teg si yoon ma defal ma lii leen la sant am na maa ngi ci liggéey maa ngi ci kaw li ñuy wax rek ñoo xam ne si ginnaaw am jar ma koy wax parce que wax bëri bu jaru ko mais en tout cas ñu bëri suma ginnaaw ay kilifa rawatina ki sama ginnaaw ko grand waali ak ñeneen ñu bëri xam nga mooy li nga wax ne loolu moom pour man xam nga nañ bàyyi mu seetlu quoi su ma ñëwee si laa ma jël dina am ba xam jor am na gën a wala alaaji Mourad li ma koy laaj mooy que ndax si bu xotaan lay takke wala seeraan lay takke wala xam sa cosaan lay takke si bi lay takke jaar nii ñoo gars yi ñaanal ma tàngal jaase ñu ànd dem laa ma jël waaw am nañu ay kilifa yu fekk. joxal Jordan wax kan mooy kooku. waaw Jordan dañu fekk ay kilifa. na yaakaar naa ne tey jii mën naa naar yaa ngi te Seras dafa am ay magu magu lamb yi fi nekk yaakaar naa ne fii Seras mën a tudd lamb kilif Seras tey jii ci kan la ñuy jox micro bi mu joxe xalaatam wala ñaari ñun kilifa ñaar ñaari kilifa la ñuy jox seen xalaat lu ñuy wax rek comme suñu yi nekk fii suñuy mag ñu ngi fi suñuy rakk ñu ngi fi suñuy nijaay ñu ngi fi ñëpp nag mënuñu wax waaw kii suma grand laay ngom cicatrice bi moom moom ko def moom moom tamit grand bi waaw kii ba gajaga mu ngi ne la toog fee bara mu Donna Fouta ngi nii ñoom Kafe ñu ngi fi gars yëpp ñu ngi fi bu lim da kii nag mooy Fouta comme moom mooy sunu mag nga ko mu jox kàddu